parrains yoo xam ne tey jii ak lu 2000 parrains yi lañ tey jii ñëw dugal ko te dañuy doog commencé ndax même pas un mois te dañuy continuer di liggéey fii ak fin novembre bëgg nañ jox président de la république 5000 parrains te dañuy xamal ne président que ne Touba bañuñu ko Touba ñi fi nek ci boppam ñoo doxul lu ñu war dox ñun nak dañu dugg ci terrain bi dem ak askan wi fexé ba euh, président de la république. ñëpp woteel ko ci Touba te loolu ci la nekk te loolu defe naa ne incha allah ak Mame Thierno Lo ak coalition Àjjana incha allah rabbi danañ ko am. Euh, tey jii nii soxna Ndeye Lo mii moo doon nekk di def formation yi soxna Ndeye Ndiaye mii di responsable coalition Àjjana nekkoon ci APR ñëw ànd ak Mame Thierno Lo di responsable bu mag. ñoo walante ànd ak Mame Thierno Lo ja jàppale ko. ndax ñu amul lu président président wóolu ko am lu mu ko sant ci Touba mu di ko ko seetloo mu tànn ñu andi ñu ñu fas yéene koo ànd ak moom te ànd mi nag yemut fii incha allah ñoo moom ba dugal ko premier tour incha allah ñoo ngi bég lool nag ñun fii ndax ñun néew nañ fi lool waaye andi nañ fi lu fi kenn andi ndax ñun luy fulla luy dëgg lañ fi andi copié wuñu foraatu wuñu neexlewaatu ñu jënduñu kenn dañ ñi ñu amoon démb ak barki démb ñun lool ñooñ lañ àndal pour ànd ak Macky Sall mu gañi fii Touba bi commencé léegi matagul weer te génn nañ fi génn nañ fi 2000 signature te 2000 signature yooyu maanaam formation yi moo ñu ko may ndax Thierno Lo moo ñu financé ñuy def ay formation ci tuur yi di ko def ci ndaje yi ba am ba am liñ bëgg a am ci ci formation yi léegi nag li ñu bëgg mooy jàppale waa Touba jàppale suñu responsable yi ñu ànd ndax sonn nañ ñu ngi ci terrain bi guddi di ci terrain nekk ci terrain bi bëccëg Macky Sall na kenn bañu ko li la waral na moom ñun amuñu benn ndoom ak tàng ci Touba te génne nañ génne nañ fi 2000 signature kon nga xam ne ñu su amoon ndoom ak Touba ci am ndoom ak tàng ci Touba luñ bëgg danañ ko am kon nag ñu ngi ñaan ñëpp. ñu taxaw jàppale ñu si maam Thierno ñu ngi lay ñaan nga gën a wedd sa ngemb jàppale waa Touba ñu fas yéene fal Macky Sall premier tour.